jaajëfal alxaaji suñ mbàkki si le mi nekkoon ci jotaay bi ñaanal ko tawfiix sutura ak teraanga ak projet def dara tabaarakallaahu bi nu jógee ci élection yi noo ngi ci tomb bu tudd yóbbalu ki ñu fal yóbbalu ki ñu fal yóbbalu fal mooy e, fàttali ko programme fàttali ko programme te mooy programme bi nga xam ne moom la war a def waaw programme bi nga xam ne mu ngi ci kanamam programme bi ne ci kanamam bi ñu yëkkati jotaay bi démb ñu ngi tolloon ci tomb yu am solo ci wàllu programme te mooy wàllu euh, bi a wàllu environnement bi wàllu environnement bi waaw environnement mooy li nu wër li nu wër ba baa ngay dem ca géej ga li nu wër environnement bi nga xam ne mbirum nit la ak bi nga xam ne mbirum nature la bu njëkk bi nature bi di baax loo masa bay mu ñor neex imaam Ablaye Ndaw yàlla na ko yàlla yokk wér <laughs> keroog may waxtaan ci pulóox waaw keroog ma waxtaan ci pulóox waaw nee keroog bég na mbé <laughs> mbégte moo xam ne waaw ndax ñun ñëpp dañoo seetlu ne ñam bi ci ndab li moom daanaka amatut waaw te ba ñuy nekk ca daara ja buñ la ma saana may reenu pulóox waaw nga sóol ko ci taal bi ba ci kanam seete imaam lay ndaw nee na mu loolu daal naa ko bamtuwaat <laughs> waaye nature bi dafa gàntu sëriñ Cheikh moo daan wax nature bi dafa mer sëriñ Cheikh moo ko daan wax nee na nature bi dafa mer environnement bi dafa mer moo tax tabarkàlla gis nga ni dëkk bi mel wér-gi-yaram yombu fi ba may benn hôpital da ngay defee ne ñépp a feebar nga dem morgo defe ne ñépp a faatu nga dem armelee waxi noppi loolu nag yar naa bàyyi xel lool ci environnement bi ñi nga xam ne ñooy bale ñuy jot seen àq balañ koo soxla ndax li ñuy def daa métti bëri ay risque xaw ma nag am nañu prime de risque xaw ma wala déet wala nun des na ko di dem déet waaye li ñu liggéey dafa metti waaw ñoom xawma lu ñuy lu ñu leen di fay waaye fay gu baax la leen waroon di fay jar na sax ñun ñi nga xam ne ñoo dëkkee réew mi nu jaarale fu ñuy jaarale foo xam ne fi ca la ñuy fay waxoon naa ko ci daara yi waaw xam naa programme daara moom gaañ booleegunu ko ci wala boog dégguguma ko mu siiw ci waaw danaa ci ñëw xëy na waaw uh, bi wala boog penc maa ngi leen di xaar yéen ñëfalu ci wàllu culture wàllu culture te mooy fexe ba nit ki xamum réewam xam diineem xamuk xamuk bokkam waaw xam ay kilifay diineem xam ay kilifay aadaam culture tekkiwut dóori pooj ak ndagar walleeg suy doom culture tekkiwut loolu dong déedéet gën naa xóot loolu waaye noonu sunu penc moom boo ne culture rek tabaarakallahu nu defe ne mooy fecc maak yu ne demee mbokk yi yéen ñi falu yéen ñi falu noo ngi xaar ci yéen beneen tomb bu tudd sport ngi xaar ci yéen beneen tomb bu tudd sport sport mooy tàggat yaram léeg-léeg ma dégg ñu tàngat ma du tàngat de tàggat yaram la sport euh, aw yaram daa war di yëngutu ñu fexe ba ndaw ñi ci tollu te bëgg koo def ñu am fuñ ko defee xam naa ki dénk Dakar ak ki yor wàllu sport war nañoo joxante loxo lan moo xew ba suñ stade def nii mu def waaw lu tax stade Demba Diop mel nii mu mel lu tax Iba Mar mel nii lu tax lu tax amuñu lu dul benn stade bële ca Thiès fu ñu fu bële lan moo xew te gone yi ne ci terrain bi bu ñu fubalee lu lu lu lu lu lu suñuy xol ñuy yuuxu leen bañ afale waaw waaye leen góor nag <laughs> xam naa nun bokkuñ ci eh, ñi nga xam ne ñoom la suñu borom wax naan wala in kafartum suñu borom di wax ne su ma la joxee boo santee ma jox ma dolli waaw nañ ma baal xam nga dem ca fa nit ñay jongante ñu ne dugaloo bii yu bari dañ caa war a boole ne encaissé woo bii dañ ko ci boole dugaloo benn ah, benn bii nga dugal ñu bool ci nag encaissé woo bii la ca tege mooy boo jëloon ndaare ñibbi pee nga jël la in shakartum mooy nag loolu ñu jot a am nu sant ci sunu borom su ko defee la azidannakum waaw mu yóbbu ñu quart de finale bu ñu fa àggee bu ñu santee mu yóbbu ñu demi finale <laughs> ñu sant mu yóbbu ñu finale ñu sant jël ko ba ñëw yàlla nañ ko jël te ñëw waaw ala ko li xaal espoir laa bëgg wax rek ci lañ toll ci wàllu ñi falu gox yi ak ñi falu ci commune yi ka falu Thiès ka falu Tëngéej ki falu Dakar waaw nu bàyyi xel loolu bu baax a baax ndax sport da koy lebal mu fay la boo ko lebalul du la fay da koy lebal de boo du la fay yéen ñu ñu fal ci yóbbal bi ñu leen di yóbbal mooy ngeen bàyyi xel njàng mi ngeen bàyyi xel njàng mi njàng mi day ñaari njàng la mel ni njàng mi waxul dara ci wàllu budget bi ndax mi ngi ciy jot doonte mi ngi ki jafeñ-jafeñam yoo xam ne duñ tàqalikook moom waaye mel ne njàng mi de moom jotul dara njàng mel ni moo école mel ni njàng mi tudd daara njàng mi tudd daara 1945 ba fii nu toog walla lu ko jiitu ba fii nu toog jamonoy daaray piir waaw jamonoy daaray jaamal jamonoy daaray kokki ca kokki gu njëkk ga waaw jamonoy daaray eh, dëkk réew mi yépp fu ma fu ma sa am daara waaw daaray dimashq ca góor ga Cheikh Bamba Sall fooba fii nu toog pénc meeg daara moom lu ñu leen jox ay ndimbal lañ koy tudde yéen ñu ñu fal bàyyi leen xel daara école de tabaxal nañ ko wutal koy table banc wutal ko tablo tegal ko ca craie wutal ko ku koy jàngal ah yaay ji toppatoo di sang bam set mu xëy jàngi waaye ki ci daara ji wutaluñ ko ay loko ki ci daara ji fayaluñ ko jàngalekat mukk ki ci daara ji dañ koy aaye mu yalwaan te kenn sërëxu ko ki ci daara ji yooyu yëpp mi ngi ci moom ñu ne bu ñu amee suñu budget bi euh, quarante pour cent maanaam ñaar fukki dërëm yu nekk juróom-ñetti dërëm ya ci njàng mi lay dem njàng mi ñu jàpp ne moo di njàng ci réew mi léeg nga dégg ñu ne ministre bi yor wàllu njàng mu kawe mi mel ni noonu daara ji ñu yor moom du njàng mu kawe te yàlla xam na ne mooy njàng mi gën a kawe ci njàng yi mooy njàngum daara waaw enseignement supérieur mooy alxuraanul karim mooy enseignement supérieur ma wax la ko tey léegi nag mën nañu wax njàng mu kawe mi ci wàllu tubaab baax na noonu baax na waaye njàng mu kawe mi rek yem ca. déedéet njàng mu kawe mi mooy njàngum alxuraan waaw waaw mooy njàngum alxuraan te njàng mu kawe moomu moo fi génne ñi gën a kawe ci pénc mi alxalifa sëñ Babacar Sy Mansour mii ci njàng moom la jóge ca daara ji a Cheikh Mouhamadou Mountakha mi foofu la jóge su leen doon lim fi la ñu añ fekk te kon imaam Ablaye Ndaw du ndékki <laughs> waaye daal li ngeen ci xam moo ëpp li ma ci xam waaw daar ju mel noonu di génn ñu mel noonu te ñu bëgg jikko yi rafet jikko yi baax ñu ne ko yow moom toogal rek di seetaan débrouiller leen moo tax ndeysaan yàlla na yàlla yërëm jàngalekat alxuraan yi léeg-léeg nga dem gis kuñ ci abal kër gu ak gut ndeysaan waaw kër gu ak gut waaw léeg-léeg ci abal ci kër gu ak gut donc yo toog mooy leen dem leen ngeen yalwaani lu ngeen añete ñëw jàng ndeysaan dem leen nelwaañu lu ngeen reere te ñëw jàng hmm? ndeysaan waaye fi ne dong bu génn ñu sarax ku ñaar fukk rekk coow li kur waaw ñu ngi exploité xale yi ndàngam ak ndàngam waay waay yéen ñi nga xam ne falu ngeen te bëgg a jàppale daara bu leen yem ci daañ leen ta tabaxal ay franco arabe daara lañ wax waxuñu franco arabe daara lañ wax daara it daara ju moderne amut daara dafa judd rek moderne modernisation googu nekk ci daara sax moo tax daara génn ñim génne ay intellectuel waaw comme mel ni Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy al Maktoum sànn <laughs> allahu akbar moo tax fi ne bu bu bu làmbi diine sàjjee bu làmbi diine sàjjee ku jël ñooñu boo demee yaay jël drapeau ba suñu Cheikh Ahmad Tidiane si suñu Cheikh Mbacké Gaynde Fatma waaw bu ma leen limee ñoom tam duma fi jóg waaw te ñu jóge woon ca daara ja ña ca nekk ay économiste xam ngeen leen te ca daara ja lañ bàyyi ko daara dey daraa nga fa waaye ma ne kon yéen ñi ñu fal bàyyi leen xel daara gis nga école yi koñ boo dem am na école waaw école booba fa am bu fekkoon nañ faa tabax ñaari ñetti kalaas classe bi xale bi ijjee bi muy boolee bi muy mokk bi bi muy maasalee pour mokkal ñun loolu doy nañu xismu tahajji wa xismu taawid wa xismu tahfiis ñu dem ñetti jàngalekat rek ngay wut wuti leen soldu ñu dem waaw léegi tey kon daara defar penc moo xam ne yu baree bare dana fi wàññeeku yal yàlla dimbale yéen ñu falu bàyyi leen xel ci ci daara bàyyi leen xel ci e, yooyu nga xam ne mooy am ci pénc mi tabarkàlla waaye yéen ñi bàyyi leen xel ci yooyu ma doon junj tabarkàlla su ngeen noppee nag la ca tege lépp tega ca di ay yëf am na lu ñu tuddee boole yàlla ci mbir yi li ñu tuddee boole yàlla ci mbir yi yàlla dafa ne waa Quraysh waaye yéen euh, lii laa fi Quraysh ilaafihim rihlata shitaay wa sayf muy yéen waa Quraysh seen coono bi lu leen ko teg fu ñu leen fekk yéen a nga ca rihlata bu shitaay jeexee nga yéen na nga sayfi yoon sonn ngeen di waa Quraysh ne su ngeen ma ci boolee ma xëcc li sori nu la ciy boole mu ne fal yaabudu fal yaabudu rabba hadal bayt kon yéen ñi falu booleen ci boole leen ci yàlla te bañ a taafantoo rek nous sommes laïcs yàlla daa war a bokk su bokkee at amuhum mi juu su bokkee wa amanu min xawf bokk yi yàlla na jàmm yàlla nekk ci yéen ak seen njaboot démb ak tey loolu moo jëmoon ci yóbbalu ñu ñu tànn ci gox yi ñu ñu tànn jox ki ñu tànn jox ko Dakar ki ñu tànn jox ko Tëngéej ak ki ñu tànn jox ko Cees tabaarakallahu bëggoon nañ mu gën a yaatu ma del siwaat ci tomb bi ñu nekkoon nag mag yéen muy alwaxtu waxtu fi xayaatil muslim muy temps ci dundub jullit bi di ci ànd ak al imaam ak docteur Youssouf al Qaradawi yàlla na ko yàlla yokk wér waaw ku am solo la ci ci ci ci pénc mi ku baaxu gisin te rafet la ko téere yu baree baree baree bari liggéey na bind na leen moom moomu moom Yuusuf Xaradaawi liggéey na ci fiq ak usooli fiq ay téere lu mat ñett waaw waaw liggéey na ci tabarkàlla alxuraan ak sunna waaw liggéey na ci économie islamique bari na bari na bari na ci barab yi mu liggéey moom moomu lañu àndal ci alwaqtu fi xayaatil muslim bi ñu yëkkati jataay bi ci alxames jéenu génn noo ngi tolloon ci li war jullit bi ci waxtoom ma waxoon yépp nag doon tàmbalee ñëw ci commentaire yi commentaire yi ba ci jiitu mooy ab jullit daa wara a xër ci taaxam daa war a nay ci taaxam daa war bëgg bëgge daa war a kopp-koppal ci taaxam lépp looy xër ak a bëgg waxtoo ci raw wax naa leen ne alxasanul basri daa waxoon ne moom de fekkee na gaa yoo xam ne une de temps moo leen gënal million fekkee na gaa yoo xam ne benn une de temps moo leen gënal million ndax liñ mën a liggéey ci une de temps bi tabarkalla ëpp na million saatun minhu tara bi muy sama wal ardi ay tadayati la góor ga waxoon ca tiwaawun maam Cheikh Alxaaji Malick Si radiallahu taala anhu kontaan dañ ciy xër Euh, beneen boroom xam-xam ca boroom xam-xami démb ya daa wax ne min alaamatil maqti idaatul waqt mu ne ko bëgg a xam yàlla mere na lam déet xoolal sa temps booy sànq temps yaa ngi ci merum yàlla booy jëfandikoo sa temps yaa ngi ci mbégum yàlla min alaamatil maqti idaatul waqti daanañu waxte ñoom mag nga temps jaasi la da nga koy dagg mbaa mu dagg la waaw temps ja moo jaasee yam jaas joo xam da koy dagg mbaa mu dagg la waaw moo tax nit ñi ci temps saa bu ñu xëyaan dañuy fexe gën nañ mel démb waaw bët bu set ñu bëgg nañ meloon démb niñ mel tey gën ko ni seen kër mel démb ni seen kër tey gën ko ni seen njaboot mel démb ni mel tey gën ko ni seen koom-koom mel démb ni mel tey gën ko noonu lañ daan def ñoom min xaalin ila xaalin ahsana min ha loolu mooy programme bu jullit bët bu set fexee la gën a baax waxoon naa ko ca jàkka cité prestation ndeysaan waaw jamonoy euh, al imam Omar Daymani Dieng ndeysaan jamonoy imam Moustapha Ndiaye jamonoy papaay papaay euh, Baye Umar Gueye mii ndeysaan waaw <laughs> te paa yooyu waaw paa yu am solo la ñu woon tabarkalla ci ci ci ci ca jàkka ja yàlla yàlla fay leen te def lépp ci seen téere jëf hmm? waaw waaw mag ñooñu ngankoon jàkka ja nekkoon ca yàlla na tooñu ñu fa daan tafsir waaye daan wax ak ñoom ci temps di wax ak ñoom ci temps ak ni lislaam tëggi temps ak fi mu ko dugal ma ne kon temps da ngay fexe ba sa tey gën sa démb waaw nga fexe ba sa suba gën sa tey tilka ummatun qad xalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wala tusalunu amma kaanu yaamaluun waaw loolu la passé présent ak futur waaw passé présent ak futur waaw ñoom mag ñoo ñoo daan wax ne suñu màgg jàkk ya yal yàlla sa yokk leen yërmande koo xam ni kii sa démb ak sa tey ñoo yem kepp waaw sa lënd ak sa mardi sa lënd bi maanaam sa mardi yokk yokku woo ci dara dara du xam-xam du am am du jikko nee na kooku max boo nun waaw maxbuun maxbuun mooy ku romb lu ku am lu seer wanteer ko kooku dafa dafa def alxibn moo tax alxuraan tudd am saaru tudd ataxaabun waaw ataxaabun waaw dem yomal xiyaam naan nii <laughs> ay waay su ma ko nii doo ko xame noonu ñu ne koo xam ne kii sa tey moo yées sa démb malunun waaw koo xam ne sa tey sa démb gën sa tey kooku ma malunun yàlla rëbb na ko moo tax mag ñi bis bu ma romb ñu def ca lañ cay def boobu neen ñëw ñu defaat ko ca sëriñ Fàllu bu sëriñ Abdul Xaadir yàlla na ko yàlla yokk wér dañu mas waxtaan ci waxtaan yu mel noonu mu ne ma Euh, Sëriñ Mbàkke Buso radiyallaahu taala anhu ba muy liggéey waaw silaati fii mawaaqiiti solaati nee ma bés bu ne bu yendoo ci kër gi bu jant bi génne mu natt ko bu doxee tutu mu natt ko bu doxee tutu mu natt ko buy so mu natt ko nee bu amee lu ko tënk ba mu dem ca bés boobu daf koy leb bind ko di ko xaaree déwén Hmm? waaw waaw buñ ne tey le vingt six ci weeru janvier mu dem ci ma xam mbaakol am xew walla dara boobu daf koy bind vingt six janvier deux mille vingt deux léegi vingt six janvier deux mille vingt trois ñooy niroo ñoom ñaar ñooy niroo ñoom ñaar heure bi jant bi so vingt six janvier deux mille vingt deux nee nañu ca lay fenkaat ca lay soxaat euh, le vingt six janvier de euh, février laa bëgg a wax non janvier deux mille deux mille vingt trois la ñuy nirooye moo tax na sa tey gën sa démb bu sa tey ak démb yemee perte nga bu sa démb gënee sa tey ñàkk nga mbokk yi bind bi jeexut dañu ak fara fi ñu ko waa yëkkatee bu leen neexee ci kanam tuuti ngeen woote ci 88 628 98 98 ngeen bës 2 88 vingt 628 98 98 ngeen bés 2 ñu ànd suñu jotaay bi nga xam ne lundi lay am ak mardi 8h lay tàmbali 10h lay jeex jërë ngeen jëf ci ànd beeg si DFM seen rajo ak seen for yi te jotaay bi ndax suñ mbokk yi xëy ci xibaar yi ñu ngi nee taxaw yor seen i këyit bëgg leen filim fànceel xibaar yi ci tubaab filim fànceel na ko ci wolof ñaan leen yàlla ñoom ak yéen ak suñu technicien bi ak suñu àndandoo bi C3S waaw nekk fële ci yoonu Lac Rose ba ci Kër Massar la muy jaay du xumaag yàlla yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir ca def ci suñuy poos dara yanaan daloon coxtaani moo di seen mbokk Alioune Sall in uridu illa al islaha ma tataatu wa ma illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa